daan ni ko wa hal yukibu fi naari jahannam illa xasaidu alsinatihim ndax jàpp nga ne nit ñi ëllëg la leen di yóbbu sawara dara ëpp na ca doole lu wax ci làmmiñ tont li mooy déet kon làmmiñ day musle waaye nag safaan bay day am kon la woykat boo waxoon ne yamuutul fata min atratin bi lisaanihi wa laysa yamuutul maru min atratin rajul maanaam nit ki moom day fakkasalu ci tànk dem ca waa gol bi wala ña sant ñu moccal ko ko wala mu dem hôpital waaye nag fakk fakkasalu ci làmmiñ moom amul pexe kon làmmiñ a ngoog bu ko defee nag làmmiñ dafa am lu am lu sewlu ci ne lu mat a xam xam nga làmmiñ melul ni melul ni sawara xam nga sawara boo la dee lakk da ngay teel a xam ni sawara ngi nii moom boo ci jëmee sa baaraam rek balaa àgg da nga yëg ni sawara la bu ko defee nga wut say làmmiñ nag bu la dee gaañ day tàmbali ngaañ lu yàgg te doo yëg ni mu ngi lay gaañ xam nga li nga teel a yëg jóg ca baax làmmiñ nag moom dalay gaañ di jël par ndànk-ndànk doo ko yëg ba fa nga ko yëgee day fekk rek boo moytuwul dabu ko day weesu loolu alxuraan na ko nettali dafa am ñoo wax ne daan dañ daan romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax lu ñaw assalaamu aleyka yaa nabiyallah maa ngi jégul si wax gi di ko wax lu ban ñu wax loola ba mu yàgg ñu ni ah ñun daal lii nuy wax ci dub yónente ndax bu doon ab yónente lii ñu koy wax danaan wàññi dara wa ida jaauka xayawka bi ma lam yuxayika bihi bi bihi llah wa yaquluuna fi anfusihim law laa yuadibuna allah bi ma naqul yónente bi dub yónente ndax bu doon ab yónente njaaxum gii ñu koy wax suñu borom dana ko feeñal léegi dumanu suñu borom leen déedéet njaaxum nga maanaam li leen di dala ngi ñëw de xasbuhum jahannam yaslawnaha fa bisal masir kon làmmeñ bokkut ak sawara sawara moom da koy jub yëg ni moom la nga wut say matukaay làmmeñ nag dalay gaañ ndànk-ndànk di la gaañ ndànk-ndànk ba fa nga koy yëgee day fekk dabaatal ko su kon loolu moo tax làmmeñ xaw a doy war làmmeñ lañ gis ci alquranul karim sunu boroom yedd nu ci yedd goo xam ne miinuñ mu yedd nu ko ci yeneen biir benn barab sunu borom yedd ci ñetti yoon lu ko waral làmmeñ ñu ni déete waaye mu teg ca ni ah na ngeen xam ne it nag neexuma muy ab ñeenteel am na ci jullit bu baax bu jigéen buñ waxal ay wax waaye bi suñ boroom ñëwee dani yedd naa leen ci yett maanaam ku dégg shaia bi maanaam nga xam ni maanaam lu demee ni ay rumeur la ko dégg rek fexe xam li ñu wax lu mu doon nga ñëw di laaj mu ne tere naa lool ñaareel ba kun laaj nga tontu tere naa ko woyefal gi nga ko woyefal ba nga xam ne ku laaj ñu leeral ko ko it tere naa ko id talaqaw id talaqawnahu bi alsinatikum mooy ku ne di ko fexe xam tere naa ko wa taquluuna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm laaj it nga tontu te la yow xamoo ci dara tere naa ko wa taxsibunahu hayyinan te yow li ngay wax doo yëg ni sax yaa ngi wax bu muy nag wa huwa inda allahi azim moo na day yéen a jàpp ni diisut waaye ak diis te fekk lu lu lu lu lu yàlla diisal nga woyofal ko day diis lu lu mu woyofeef xam nga danga dégg ci euh, as-suufi yu ne yi ñuy wax ni la saghirata ma al euh, istigfaar waaw la kabirata maa al istigfaar wala saghirata maa al israr nit ki li nga def mu tuuti bu ko xeeb boo ko xeebee rek day gonfale wu léegi mag lay doon waaye du nekk ci gone bu ñu xoolee ci alquranul karim danañ gis ni fu suñ borom ne wa man azlamu wa man azlamu amul ko dàq tooñ amul ko dàq tooñ kii amul ko daq tooñ kii nga ni waaw kon ñii ku ci dàq tooñ mu ni maanaam li mu ci jul mooy tooñkat yu mag yaa ngi nii ne ñi ñoo fi dàq tooñ waaye boo doon xool yooyu ñim ci site ñu ëpp ci làmmeñ lañ coore tooñ mi ci mi man iftara mi man kadaba mi yooyu yëpp làmmeñ la kon làmmeñ boo dee xool fi yàlla naan tooñkat yi ñii fi dàqa tooñ boo demee làmmeñ kenn du ko ci ëpple te loolu bokk nañ li koy firndeel mooy ñun ñëpp jàngandoo nañ ko ci téere sëriñ bi bakkaar yi gën a màgg nga xam ne tudd na ci ñaar fukk fi boo ko doon séddale làmmeñ moo ci ëpple ndax defe naa ñaar fukk boo ko dee séddalee lu mat ñeenti nit ba ñett am ko am juróom-ñett koo ko ëpple te mu am na ci juróom-ñett kon ci la ñuy xamee ni daanaka li ëpp ci liy gaañ doomu aadama dafa mel ni bunt ba muy jaare mooy làmmiñ wi ni ma waxoon nag ni làmmiñ euh, sikkin daatu wajxay ni la maanaam paaka bu mën a daggee nii mën a daggee ne maanaam am na njariñ lool waaye it nag mën naa gaañe ba mu jéggi dayoo laa ilaha illa ku koy wax aw làmmiñ fi mu doon bu ko nit waxoon donte jëpput loolu ci xolam jullit la kenn sañu ko rey kon kooku am na doole te it ku muccul ëllëg ñàkk ko wax moo la tee mucc ndax innahum kaanu ida qila lahum laa ilaha illa allahu yastakbiruun kon yor na doole yor na njariñ jun mën a teg bara waaye lor ji noonu la deme wa lu'inu bi ma qaalu wa bañee ne yadullahi maghlula suñ boroom ne walla tey diihim fayu donc nag bal yadaahu mabsuutataan yàlla yéen na ni daa nay waaye yàlla nayut waaye dani walu inu bi ma walu inu bi ma qaalu wenn saar nag gis nañ fa luy wane ni ba tey làmmiñ day jariñe ndax fa ataabahum allahu bi ma qaalu jannatin tajri ma ngi kanam ñoom ñëpp ñu bokk wenn saar fi mu ni duma naa kii ndax daa wax bégal naa kii lan daa wax kon sikkin zaatu wajhayni la bu ko defee muy loo xam ne sàmm ko dara tollul ni moom ci njariñ sallallahu alayhi wa sallam nee na mucc ëllëg ni mu jafee yàlla suturaal la yaag sa awra ni mu jafe ëllëg waaye ku sàmm saw la yàlla defal la ko te ku jëm ci bis boo xam ne danaan la yawma tubila sarair lu nëbb woon lu ne ñëpp a koy fekkeendoo xam nga àddina moom bari na yoo xam ne moom ñenn na ko fekke wala ñenn na ko dégg waaye loo xam ne kenn ñëkkuta ñëw kenn ñëkkuta ñëw wa yasalunaka an iljibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadaruha qaan safsafan la tara fi iwajan wala amta moom amut fu may laqtu ndax amul ay montagne ak ay xura ay nangam nangam bu suñu borom ne fanfudu la tanfuduuna illa bi sultaan ku mën a daw dawal waaye ki la la taxawal naa la foo xam ni foo jaar ñu séen la ba noppi naan la dawal kooku lu mu la jublu wax kon nañ bàyyi xel ci tomb boobu sallallahu alayhi wa sallam nag mi nga xam ni mooy modèle bi gën a màgg ci lépp lu ñuy wone ci jikko ci lu ñu war a wax wala wala lu ñu war a jëf kun war di fàttaliku la ci waxinam mat na ko lool ndax fa yastaxi minkum lu ko waral mooy am na loo xam ni sax xaqam la jum bëggoona wax waaye mënu koo wax ngir bu ko waxee daa mel ni daa wax lu dis si nit ñi ba mu yàgg weesu na foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom leen rotut ñu ni mus naa wax kenn ni ko yaa di déedéet fataaya fataati ay sama waaju baax ji ci sab jaam loolu ñi yor sax ay ay ay ay euh, ay employé war nañ sax di di bàyyi xel ci loolu xam ne nit ki da nga koo ëpp wërsëg kon doolin da nga koo ëpp jikko kon boo dee jëflante moom nga jëflante moom ci kaw yow kat yaa may liggéeyal surga nga waaye nag wa quulu linnaasi xusna suñu borom ne wa wa quulu li ixwanika wala wa quulu lil muslimina déedéet wa quulu linnaasi xusna am na benn xakim bu wax ni sàmm làmmiñ ci àddina li ko tax a noppale mooy sonn ci bam ñoŋ daa gën a yomb ëllëg ñu laa lii nga ni maa ngi rëcc foofu amul rëccu di wala amul njariñ bopp buñ jàllee ci baat bi mu bokkal te mooy al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadihi buñ ñëwee ci loxo nag moom itamit li ñu waxoon ci làmbañ rek lañ ci wax ku bari njariñ ku bari ngaañ waaye war nga koo sàmmal dëkkandoo ba bu fàtte woon alalam sa kër bu demee ca marché ba ak surxu surxu lu mu bari bari bari bu xelam ne yar ci bàyyi naa sama yëf diw kër diw du ko jaral wàññi ndax day jàpp ni loola moo lam denc ca gaalam ñoo yem dana ci jot insha allahu taala nit ki war ngaa fexe sàmmal sa dëkkandoo sa loxo bam ñimee ko noonu waaye nañ xool tuuti ci ngaañi loxo xool tuuti ci ay njariñam am na foo xam ne suñu borom dani am na loo xam ne loxoo koy def waaye saa yu ko defee danaa toroxal kooku juróomi yoon wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannam benn ngoog ko fiha ñaar wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aadda lahu adaban la ko xamutu kon def bu defut waaye safaan ba day am jaamu yàlla gi gën a màgg mooy julli lu koy tax baax laab indi loxo ak laab bi suñ boroom ne ida qumtumu ila lsalaati fagsilu wujuhakum wa aydiyakumu ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakumu ila alkaabayn loolu ana ban farata moo ci farata bu loxo du def lépp loxo koy def te njàpp moom mooy tax nga laa laa tax julli baax même borom xam ne dañoo wax ni boo doon jàpp bëgg a bomb saw yaram ñëw ba ci tànk yi nga jël benn bi di di bomb ci biir di sot di ci bomb danaan la baaxut ndax euh, bomb loxo lañ koy defee kon boo demoon ci jàmm yàlla gi gën a màgg la koy tax baax muy laab bu ca loxo génne woon loxoom dara du ca des kon foofu soloom feeñ na fi ñun la nag loxo boobu nag amee noonu njariñ fexeel ba na ca kumu mucc waaye dëkkandoo bi na mucc ci sa sa lori biir ne woon naa fi léegi biir moom der wu nooy la woo xam ni comme réesu doo xuri ko doo xotti ko dara la dara la ju fekk waaye nag lu mën a gaañe la ci yii gaañe ci la bokk saa yoo lekkee yëfi jàmbur yu lewut boo ko yëgee boo ko yëgut gaañ la ko tey yow it nag dangay ngay gaañu dolli ca day gaañu nga gaañ day gaañu nga gaañu li nga xam nag boo ko defee kooka day gaañu nga gaañu ku yorum xel war na koo wattandiku ndax suñu borom bi mu xasee ne xalaalan tayiban lu xaraam moom amatul place moo tax am na wax ju sew ju xaw a am ak wuute ci diggante ulama yi ci nit ki lu mu lekk lu ne lañ koy jàppe waaye liñ gëm mooy nit ki moom lu mu lekk lu ne wërsëgam la na yëfi jàmbur da koo fuqarte da koo sàcc da koo liggéey lu mu lekk rek wërsëgal la waaye nag gannaaw loo lekk sa wërsëg la day mel ni boo defa ndànk mën naa am nga jot ca wërsëg ya gën a dagan te yëg daganut mën naa am ñu teggi la kon loolu dafa mel ni foofu jafe-jafe yàkkamte dafa mel ni xas na fi laal doomu adama kon nag muy man muy kudul man ñu bàyyi xel ci diggante boobu yàlla daa bëggoon nit ki lu muy lekk rek na am dalu xel bi muy lekk eh, wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla fa in tibna lakum an cheyin minhu nafsa nafsan fa kuluhu hani'an mari'a kon loolu tegtal la bu yaa bu yaatu ci nit ki na góor góorlu ci li muy lekk xam lan la foofu nag day lu yaatu loo xam ne moom lekk moom moo xam lu dëkkandoo la moo xam lu lu lu koo dëkkalul la kooku moom aay na ci ñépp bu ko defee bokk na ci yi nga xam ni dëkkandoo war na koo sàmmal dëkkandoo mooy am pëyam nag ko sàmmal ba nga xam ni lu jamono lëj lëj lëj bu nekkoon fa gën a sore ñu ne ko kar bu di téléphone lu mu doon mu ne ko diw de mi ngi ci biir kër gi la xelam di njëkk a dem mooy ah loolu de daana am loolu de daana am nit de daana toog mu yàgg mu dégg kër diw ay wax mu dem ndekete xëy na ak déggootiku la ci seen biir walla ku jagadi la nga xam ne xelam li muy njëkk a rab mooy kon loolu waaye xelam dem ci ni Omar daana toog ba guddi muy jóg di dugg ci biir kër yi waaye am na benn bis mu jóg di dem nit topp ko di lijjanti mi def lu doon waaye ndeke ban demee ba ci cëppaandaw ga màggat bu mënul dara amul dara kenn taxawu ko moo ko tax di jóg guddi kon it fexe ba dëkkandoo bi sa wetu awra mu ci xalaate noonu am na solo te buñ fàtte ni juróom-ñaar yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee moom yàlla du leen xool da caa boole woon wa bi xaliilati jaarihi kiy dem ci njabootu kum dëkkal lu rëy la fi yàlla buntu boobu ñu daane la ko benn xadis rek mooy sallallahu waxoon ni bokkaale yàlla rëy na waaye bu jàllee bu jàllee bu ca benn bu bu ca teg benn budut kuy dox tànki caaxaan ci fu mu ko wërta dox ma min dambin azamu inda allahi bada shirki min nutfatin wadaaha rajulun fi farjin la yaxillu lahu aw kama qaala sallallahu alayhi wa dëkkandoo jooju sallallahu alayhi nee na ëllëg ab dëkkandoo dana ñëw ci sun boroom ni ko waaye jii de sama dëkkandoo la woon waaye nag waxal ci suñ diggante ndax yaa ma sàkk-sàkk ko yaatal wërsëgam néewal sama bos waaye musuma dimbali de musuma dimbali de yàgg naa xiif mu di ko yëg yàgg naa mar di mu ko yëg waaye nag musu ci ak wutum pex daal ni ko laaj ko li ma axlaqa baabahu duuni lu tax bu ma nee konkon du ubbi waa kooku bu ko yàlla laajee loolu ba noppi ni ko nag maa ni woon wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii lu muy tontu ab jafe la am na nag nit ku baax ku wax loo xam ni dama koy faral di bàyyi xel bari lu ma koy fàtte dafa wax ni nit ki wër na def fu mu weesu jàpp ni kenn tollatu fa waroo def foo weesu jàpp ni kenn tollatu fa maanaam yaa ngi ak taaxum kaw waaye am na koo den koo xam ne ab sëngal la yor te mën naa am bis bu doon taw jëmi permi féete penk ndox mi ñëw tuwaal bu mu fa def sax ngir ndox mi du agsi mën naa am amu ko boo ko fàttee rek ëddatu ki kon nit ki war a def fu mu weesu jàpp ni kenn tollatul foofa te it dimbali ki nga xam ne dafa am njëriñ ndax damay wax ni sunu borom dafa indi ñaari aay yoo xam ni dañoo soriyante ci ak coono waaye pay gan ak jigante lool wa man yuqaatil fi sabilillahi fa yuqtalaw yaglib fa sawfa nuutihi ajran azima ku yor ngànnaay dem ca xeex ba boo amee ndam ak bu la dàqee ñoo ci am danaa la fay fay gu mat sëkk la xayra fi kathirin min najwihum illa man amara bi sadaqatin aw maaruf aw islahin bayn annas wa man yafal kii moom day ñëw rek la ah kaay kaay diw kat fan yi daa xaw a sant jaañ kaay yi wutum pexe yàlla ni la danaa la ca fay la ma fayoon ka yor ngànnaay buñ ko rayee ak bu rayee kon joxe gi njëriñam ci kon ñàkk gee yar moom gaaf la waaye nag gaaf ga mën naa sori ba àgg ci li ñuy nekk li nii waaye ji kat doom ji day xëy xëy jëlu yar rek dipp dipp dipp dipp bay waaju tusukare mu ñëw ci Omar sama doom jii de mat naa wax ndax yar nga ko déedéet jàngal ko alxuraan déedéet lu mu xam nag dara mu ne ko mën naa li ma yaakaar mooy bi mu xëyee war mbaam mi xaj bi topp ci gannaawam mu yiital nag yi damaa yaakaar ni diggante boobu nga xam ne moom xëy na xam nga bu ñu ko seetloo sàmmkat yi ne ci àll bi faaw ñuy wayantoo ko def yëf mu ne ko diggante woon damaa yaakaar ne xel mi daa lu mu wayantoo te xamul dara ci alxuraan muy wayantu mi woy nag di woy ba yaramam tàng nga romb ko rek fa ko am na naw doon kii mu yaakaar ne yow mu ngar li kon kenn tuñal yaatoo si bopp kon tomb bi ni daaneele mooy nit ki nag lu koy dimbali ci mu mën a sàmm xàqi dëkkandoom bokk na ca mooy faw dangay ngay xam daraja ji ko yàlla jox ba noppi waaye yow pour nga jox ko gëdd te xamoo gëdd gi ko yàlla jox du yomb te yàlla nag jox na ko gëdd ndax bi yàlla tuddee xàqam tudd way jur da caa lu néew andi dëkkandoo wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a xaq yàlla nga wa bil walidayni ihsana ay way jur ak ya ca topp mu doog agsi ci ki nga xam ne nag mooy dëkkandoo wal jeeri dal xurba wal jeeri junub bokk na ci mën a soññu nit ki ci mu sàmmonteeg xaqi dëkkandoom mooy mu yëg ni sallallahu alayhi wa sallam moo ni xurmatul jaari ala al jaar ka xurmati ummihi alayhi kenn ku nekk orma ji nga ëmbal sa wayjur war nga koo ëmbal sa dëkkandoo bu dara ñëwutoon lu dul loolu képp mu doyoon ndax li way jur nekk ci doom ja waaye mu bokk ci yi ci puus nit pour mu mën koo sàmmonte mooy sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu boroom nee na ci xadis al qudsi nee na yéen nit ñi yéenay seede yàlla ci kaw suuf ku ñu seedal aw yu mu yóbbul àjjana te ki la mën a seedal aw yu ndax mën naa doon kenn ku dul dëkkandoo antum shuhadaa'ullahi fi ardihi fa man asnaytum alayhi bi xayrin wajabat lahu aljanna kon ku aw dëkkandoo seedal aw yiw suñu borom may la ajjana kon loolu rek jaroon na kon jéem ko rafetal waaye bokk na ci li la ci soññ mooy nga teel a yëg ni nga xalaat ni lu wax ji bari bari bari ajjana moom mënu faa dugg yóbbaale ak jàmm loolu moom lu ne mën naa am ba des loolu loolu ku koy xalaat da nga góorgóorlu ci lu mel noonu ndax daa am bis bu ñëw boo xam ni suñu borom danaan bis booba de moom dana am ñu ñëw di yalwaan yalwaan moom am na si àddina am na alaxira waaye nee na saraxe mu àddina jileem saraxe fii alaxira nit dana yalwaan bay jooy waaye amul saraxe léegi nag da ko dañ ko misaale ci ci alxuraan da ko misaal ci ci ku jige koo xam ni ku ko mënta dimbali foofu doo mën a dimbali keneen wa in tad'u mutqala ila ximliha la yuxmal minhu shay walaw kaana da qurbe gis nga yaay bu dajee woon ak doom àllaaxira ni ko yow yow da xanaa du maa la ëmboon sama biir bi ay weer janq wanteeg lu ne mu ne ko ah ko xanaa maa la te jekk woon naa la ci ñàkk nampal mu ne ah lu mu ko laaj mu ne ah kay mu ne ah, li xew nag mooy damaa yor lu bari mu diis ma bëgg nga wàññil ma ci doom ñu ni ko ah saa mbirum bopp day doy na ma tey ji waaw ku saraxul yaayam nu muy sarax keneen walaw kana daa xurbe lay wax yaay sax bu la nee dimbali ma wàññil ma aslëf ngir ma mën a mucc doom dana ko loolu moom mënuma ko waa yow nag boo yoree àqi koo xam ni mosoo ko defal jenn teraanga ci àddina mosu leen a séq benn njëkk waaye kooku noo koy waxee ne ko léegi eh, léegi man kat lii moom su ma la ko joxee moomay tey mucc kon tey nga ma ko bàyyee te moom it mi ngi ci guddi gu bët sëtu loolu ku ciy xalaat mën na laa dimbali ci nga góor góorlu ci fexee rafetal ak dëkkandoo waaye bokk na ci loolu sax waxi suñ bay jaxate ñëw na si firi na ko yow mi new te xemoo bis penc ci boo fa la yow da ngay dañu lay yey moo na ngay nelawe foo ëgg xamagu nu yëf tëdde kon lépp loo xam ni dana fa dana la fa andil jalt jalt dana la fa andil jataay jeex dana la fa andil waaw ak déet loola day mel ni ki am xel war naa am wattandiku tul lu mel noonu te nag ameel xaq ku dul ab dëkkandoo it gaa mi ngi am waaye nag ameel xaq moom saa yu ñu ko waxee rek li ëpp ab dëkkandoo la ci njëlbeen gi ne neewoon naa dëkkandoo nag du koo sësaloo ay kër koo sësaloo kër dëkkandoo àgg na ci yeenti mbir waxoon naa ko fi rek fi sinaa fi tijaara fi ziraa da ngeen bokk métier da ngeen a bokk di bay yooyu yëpp ay xeeti eh, aw xel ci dëkkandoo nga xam nit ki war na cay bàyyi xel suñu suñu suñu dellusiwaatee aslaf ci yi nga xam ne jotoon na fee jaar mën nañ cee tuddaat ni làmmiñ moomu ñu doon wax ni dalay musal ba nga mucc mucc waaye it safaan ba it daa mën a am am na yuñ ci jotoon a junj waaye mu desoon tuuti sallallahu alayhi wa dafa jëfandikoo baat boo xam ni liñ koy gis ci alxuraan sax bëriwul dama bañ a wax waaye defe naa ni tuubee tuubaa li na xadis boo xam ni baat boobu la ni coppeet jëfandikoo ja wane ni ëllëg kenn képp képp képp moo ko mën a am mooy koo xam ni moomoon na aw làmmiñam te nit ki su seetloo yi ko tee moom làmmiñam lu mu koy jariñ waaw toujours yow li la tee moom saw làmmiñ fi noonu boo boo boo xoolee li ëpp lu mu la jariñ xamoo ko ñu ni diw nangam fekke woo daje woo ku ca xam lu wóor te boo ci xam lu wóor sax ni ma ko waxee woon léegi ci is talaqawnahu bi alsinatikum yooyu yëpp am ba noppi nga fàtte ni suñu boroom nee na inna alladina yuxibuuna an tashia alfaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alim te defe naa fi dunyaa wala axira sax la astaxfirullah kon ki nga xam ne saa yu ay rumeur amee moom dana fexe ba pénc mu mu ëggut dana fa àgg nopp bu ko déggut dana ko dégg fi nu maanaam bu xoolee moom la ko cay fekk dana xam ne nag lii amul ko njëriñ moo tax kon foofu ñu mën fee dugal buntu ñi nga xam ni am na waxtu yoo xam ne bu jotee nit ñi danañ leen déglu ca lan leen di jotli loola lu mat di bàyyi xel la ndax ñu ngi tëdde noo xam ni ñoom ña nga cay gaañu waaye ña nga cay gaañaale ñeneen loola nag fexe ba xam wax ji yow lu la ci amal ci njariñ ak lu la ci amalu ci njariñ loola it matoon na ko kon daa mel ni foofu la yem asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rahmani rahim bushra lana qad ataana aljuudu walkaram lamma stahallat alayna alashhur alxurum alhamdulilahi alladi axata bi kulli cheyin ilma wa axsaa kulla cheyin adada alladi faddala chahra rajab wa awjaba alayna taadimahu fa wajab axmaduhu subhaanahu wa taala wa astaxfiruhu wa atuubu ilayhi mutawakkilan alayhi muctamida wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama salaatan wa salaaman daa'imayni wa talaazimayni abada amma ba'd fa yaa ayuha nnaas usiikum bi taqwallah wa axdirukum an ilxataaya kay tanaalul xayraati walhuda wa aksiru fi haadha ash-shahri min as-siyaam wa aksiru fi haadha ash-shahri min as-siyaami wa quumu fi fi dalaami al-layli wan-naasu niyaam hanii'an liman amila wa jadda fiihi mujtahidan alam yaani lil usni samaa'i an tasmaa alam yaani lit tarafi al-jaamidi an yadma an yadmia alam yaani lilladina aamanu an taxshaa quluubuhum li dikri llah yaa haadaa alam taalam anna rajab anna rajaban awalu shahri shahri lfadaili jaalahu llahu lilxayrati mawrida wa fi lxadis anna duaa fi rajabin mustajab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada alhamdulilah alladi xadda ala taqwa wa wassa wa axata bi kulli cheyin ilma axata bi kulli cheyin ilman wa axsa wa faddala ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala saa'iri al-umam wa asra bi nabiyihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa axmaduhu subhanahu wa taala wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma fa salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashaabihi alladina naadu naalu bi suhbatihi fadaila la tuaddu wala tuhsa amma ba'd fa yaa ibadallah ittaqullaha wa xaafisu rahimakumullah wa alamu an wa xaafisu wa xaafisu rahimakumullah wa alamu waamalu alxayra fa inna xayra amalikum alsalaa wa anni axsha alaykum wa alaykum wa anni axsha alayya wa alaykum an takunu mimman qaala fii fiihim maqaalan yatta'izu bihi man kaana qalbuhu xayya fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wattaba'u shahawaati fa sawfa yalqawna gayya wa fi lxadiis assalaatu imaadu ddiin fa man aqaamaha faqad aqaama ddiin wa man tarakaha faqad hadama ddiin yaxfirullaahu lii wa lakum wa li jamii al muslimiin